ay euh, jox père ak puissance su koy na donc lan tey boo déggee Mamy euh, aliment Pédo li ñu développé <coughs> donc tey lan moo waral valeur yooyu c'est dû à quoi mu raar jour nos jours léegi ko daal sutura ak kersa. en fait madame Pendo à tout dit c'est un excès de démocratie. Mm-hmm. on pense que on est très démocratique. Mm-hmm. boo waxee ñu ne Sénégal yàlla y a la démocratie. Mmh. non non c'est pas une démocratie parce que on parle de réseaux sociaux. Mm-hmm. mais da ngay dem dans les pays les plus développés. Mm-hmm. mais vous avez l'impression que amul. Mm-hmm. doo ko dégg sax. di nga vivre dem nga Italie. da ngay vivre un mois do jour trois jours doo dégg dara. et ils vivent bien. maanaam su ma déggee dañ koy utiliser à bon escient c'est ça. à bon escient c'est-à-dire doo dégg ay saaga peut-être am na ay animosité ci biir. mais vous savez pourquoi doo dégg ay saaga parce que elle s'occupe quand on n'est pas occupé on a le temps am jot bu bari baaxul de moo ñu dal nag c'est ces mots là au Sénégal lañu am actuellement il faut que ñu jéem si jóg mais pour jéem si jóg nag awa il faut que ñun ñu xam ñan ñooy Sénégal fu ñu soqe ko madame wax nga ko mhm. il y a quelques années on n'était pas comme ça mhm. pourquoi on est devenu comme ça Mhm. pourquoi on est devenu ku nekk kenn bëggul sa morom mhm. pourquoi on est ku nekk di waxal sa bopp morom mhm. c'est parce que boo waxee ñi ne dafa cher boo waxee ñi ne àdduna dafa metti mais damay faral di wax awa ñu dañu sant yàlla et puis tamit gëm yàlla si la dëgg la yàlla parce que am na ñoo xam ne gën nañu sonn ñooñu gën a gën a sonn la Sénégalais te ñun tabar fa kàll tabar fa kàll macha allah mais euh, madame Alima effectivement parfois ma il m'arrive de xool les réseaux sociaux sama am na lu ma dégg dama doon jooy si yàq der boobu la te xaw ma kan la mhm. c'est vrai mais pourquoi ñu yàq deram pourquoi ñu yàq deru nit peut-être xëy na kookule am na fu ma bëgg a dem mhm. madame Awa bu ñu gisee yaa ngi si benn yoon mais il faut ñu jéem la yàq mhm. te duñ la xam la mais nag xam nga lu koy faj. Mhm. mooy bañ a xam sax naka la est-ce que man vous savez que xaw ma sax ñuy dugalee TikTok. Mhm. <laughs> waaw kon mën a yeewa yam. man xaw ma nu ñuy dugalee TikTok je suis. wallaay jéemu ma ko xam sax. jéemu ma ko xam mais il faudrait que ñu xam dama dem benn dëkku euh, euh, africain. Mhm. ñu ne ma yéen ndax sénégalais yéen le sénégalais rek bu parler palabre palabre wax wax wax wax wax mm-hmm. on fait que parler mm-hmm. mais ñoom nee nañu est-ce que ça va chez nous mm-hmm. parce que man damay gis toujours il y a des choses positives ici chez nous awa ah am na ay choses positives ah on n'en parle pas moom laa wax léegi fekk yaa ngi def lu baax kenn du wax si yow mooy li nga wax rek kenn du si wax mais ñun nañuy wax toujours bu bon côté et pourtant am na yu baax bu baax a baax bien sûr maa ngi gis barke démb wàññi nañu ko kilo côtelette de mouton yi dama ko bëgg. kenn waxu ko si <laughs> ku nekk ak la intéressé. <laughs> dama ça m'intéresse mais il faut qu'on parle de ça. c'est de vie bu ñuy wax ñu ngi ko wàññi il faut qu'on parle. Mm-hmm. ci wax mais ñu ngi xool. beneen façon boo xam ne ça nous mène nulle part. Mm-hmm. et malheureusement. malheureusement j'ose pas dire que le pays est en train d'aller en voie de sous-développement parce que te tabarfakàlla macha allah. Mhm. tali yeeg yëpp baax na. mais je vais dire que ñun suñu xel yi ñu ngi nekk en voie de sous-développement. Mhm. ça c'est vrai. Mhm. il faudrait qu'on change ñu dellu si yàlla. wóoloonte gëmante. la biir biir yi baax. awa dama am benn ba may wax. ñi nga gis seen kanam yi bë bëri. <laughs> picc yooyu non c'est vrai da gis ñu niin.

et sutura dafa baax si doomu aadama mm. di sutural nit dafa baax mm-hmm. am na beneen boo wax awa léegi nii mooy kersa bi mm-hmm. waaw kersa man xam naa yisaay nag damay ñàkk kersa <laughs> kersa <laughs> ah, c'est vrai <laughs> de kersa nuit. oh ah, trop de kersa nuit. Ah. c'est-à-dire. trop de kersa nuit mooy kersa di wax awa nag may gêner ba ma dugg si kàmb gi. Hmm. dafay nuire. Hmm. ba ma kersa amul. <laughs> doo c'est vrai trop de kersa. ça nuit sa boobu lay wax moom moom la. na nga war a am bi muy wax mooy ñi nga xam ne dañuy maslaa ba ñu maslale leen am nga kersa bokkul ak kersa ah, man kersa non loolu bokkul ak kersa comme réew mi di fi xew léegi quoi kenn amatul kersa quoi amatul kersa bu la neexee léegi da ngay la neexee ah, yaramu neenu jàmm nga génne ko waaw maanaam amoo jomb jomb daal jomb voilà sañuy mhm. macha allah jomb ah, jomb dëgg la mhm. mhm. ay voilà donc puissance euh, dégg nga un peu li ñu fi wax alors est-ce que